الله قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa bi athaarihim wastarshada bi rushdihim ila yawmi ddin mbokki jullit yi ñuy seetaan fii ci Hidaya TV ñu ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen ziyaara di leen baal di leen ko balu di ñaan yàlla boole ñu jéggal di yeesalaat suñuy ndokkeel ci umma islamiya bi yépp ci weeru koor wi nga xamante ni ci lañu nekk di ñaan yàlla lépp loo xamante ni ñi ngi ko ci sàkku ci yiw lépp loo xamante ni ñi ngi ko ciy sàkku ci mbaax lépp loo xamante ni ñi ngi ko ciy sàkku ci jige borom bi subhaanahu wa taala ak di ko bàyyi xel bàyyi xelu ragal ko yal nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njott ci barke ki ñu amul kudul moom muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ak yéen ci seen madrasatu ramadan école du ramadan waaye ñu ñëwaat ak yéen tamit ci beneen point bi nga xamante ni tuddoon nañ ko ci fukki ya tuddoon te ñu waxtaane woon ba ci jëkk mu dellu ci albarka wala boog ci arab albarakatu donte ke dinañ ko wax al yumnu bu ko defee tey ñu fas yéene waxtaane beneen ba ca topp te mooy alxubb bu ñu nee alxubb bokk na ci baat yi gën a late ci àdduna ci niñ koy jëfandikoo tey saa boo waxee mbëggeel rek ñëpp dinañ la diglu ñëpp dinañ la xoolaat ba kere ñuy xam mbëggeel gi nga tudd ko ci jublu ak ko moom bu ko defee late na late goo xamante ni nit ki li mu gën a miin li gën a bari ci noppam lu ci ciy diglu mooy baatu amour waaw waaye moom mbëggeel moom bokk na ci jikko yi nga xamante ni ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ñi Jibril dina ko jël si waaye mag tamit dëfal na ci xelu njabootu wax ko ni wax leen ni leen ginnaaw bu ko jibril yóbboo tamit mag ñi danañu def yitte ba delloo siwaat ko ndaxte dafay fekk ñu nekk ci génération yoo xamante ni ñu njëkk ñi jigee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy source ndax source bi mooy borom bi subhanahu wa taala ku la gën a jige source bi moo lay gën a xam borom bi moo lay gën a miin borom bi waaye moo lay gën a sopp yonent bi sallallahu alayhi wa moo lay gën a sopp tamit njabootu yonent bi waaw ni ñu koy gën di jigéen ñi rek ci nga yëg ni dañuy sopp yonent bi ba sopp képp ku sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom alxubbu di l'amour nekk loo xamante ni dafa bokk ci yiy doxal dund dafa bokk ci yiy baaxal dund waaye bu boobaa na fekk mu nekk mbëggeel goo xamante ni sellte moo ko lal doomu aadama bi ko amee sellal ko ba mu sell mu mel ni kodo bu mu bëgg a ki nga xamante ni si mooy moroomu doomu aadamam bi muy dundal ci monde bi mu nekk bu ko defee dañuy wax ni mbëggeel googu ñuy échangeante ci suñu biir mooy tax suñu dund gi am dal mooy tax tamit ñuy am li ñuy tuddee sécurité mooy tax tamit kenn ku ci nekk loo bëgg a def loola def ga nga koy def dana la yomb ndaxte da nga yëg ni fi ngay jaar ñi ngay waxal ñi ngay jëflanteel ñoom ñëpp say soppe la te ku jëflanteeg say soppe doo am looy ragal waaye boo xoolee ci jamono bi da ngay yëg ni moom mbëggeel tuxu na kenn ku ci nekk en nga dencal sa morom kenn ku ci nekk jëppi nga dencal sa morom kenn ku ci nekk nga dencal sa morom kenn ku ci nekk daf ma soof moom nga dencal sa morom te bu ñu defoon yitte rek fexe ba li lay soof nga def yittem jéem mu neex la ndaxte benn buñ ci góorgóorloo rek bu boobaa dañuy yëg ni dinañ ko mën a atteindre te loolu rek moo am solo loolu lañu fi yàlla bàyyee moom mbëggeel moomu nag di soppante ñaar rek moo ci mën a am ndaxte bu fekkente ni nit ki dafay soppanteeg moroomu nitam soppante googu la koy dëgëral mooy ñu yëg ni dañ koy def te yàlla tax mais bu fekkente ni soppante gi dafa am rek ngir en tant que nit ak nit bu boobaa ci la ñuy yëge nag nga dégg ñu ni la nit sopp na nit ba pare rey ko nit sopp na nit ba pare laggal ko nit sopp na nit ba pare àtt na taxaw di ko liggéey ba kooku àndatul ak sagoom bu boobaa da nga yëg ni kon mbëggeel gi nga ko dencaloon mooy ban. yenn saa yi nga yëg nii ni jëkkër ji rey na bor na soxnaam wala nga dégg ñu ne xale bi moo rey baayam wala nga dégg ñu ni diw moo jam doomam diw moo jam xaritam bu fekkente ni ci xaritooga lay doon nekk ci njaboot gi muy doom ak waajuram nekk ci diggante yaay ak doom bu boobaa dañuy yëg ni mbëggeel gi ñu waxoon ba ko mbëggeel googu borom bi subhanahu wa taala lalu ko ndaxte lu yàlla lal rek ci yiw lay tàmbale waaye ci yiw lay jeexe lépp loo xamante ni yàlla taxul ci yiwa di lay tàmbale waaye ci yiwa di lay jeexe mbëggeel googu la yonent bi bëgg nag sallallahu alayhi wa ñi nga xamante ni ñëpp dañu wax ni dañ ko sopp mu ni leen kon fexe leen ngeen soppante ci seen biir moo tax yàlla wax na ci xadis bu ñu yonent bi nettali bokk yonent bi jàngale na mbëggeel bu ñu bëggee bëggante di am ci suñu diggante naka lañuy fexe ba sàmmal ko suuxat ko ba mën a nekk xadis bi mu jàngale ci ngay déggee facteurs yi nga xamante ni ci la mbëggeel di mën a amee waaw moy wax bi borom bi subhanahu wa taala wax fi hadith al-qudsi ni wajabat mahabbati lil mutahabbin fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadilina fiya hadith bo xamanteni buñu démé ci muwatta bu imam malik dinañ ko ci fekk ak ku ci melni bayhaqi solo nako ak ñu bari bari fa tabarakallah yàlla di wax ni moom dafa waral ci boppam loo xamante ni bu ko neexoon du ko ci waral mais yëg yëg ni loola am na importance mu bëgg ci defar penc tax na mu ni man de sama cofeel danaa ko waral ci képp koo xamante ni si bijji nga ak cofeel di ko jëme ci sa morom mu ni kon képp koo xamante ni def nga yitte ngir soppanteeg sa morom te sama jëmm tax man borom bi subhaanahu wa taala mu ni dencal naa la sama cofeel ku yàlla dencal sa cofeelam nag raw nga ndaxte doo yëg benn mbugal du ci bàmmeel du ci faneen waaw waaye mu joxe benn kon ñu yëg ni kon mbëggil bëggante la wax waaye wal mutajalisina fiya ñi nga xamante ni dañuy toog di waxtaan ci man di jàng alquran ci seen biir ñi nga xamante ni dañuy toog di digalante lu baax di terante lu bon ñi nga xamante ni dañuy toog kenn ku ci nekk loo mën a dimbalee sa morom nga dimbalee ko ko moo taxoon yonent bi ne man istataa minkum an yanfaa axaahu falyafaal ku mën a dimbali sa moroom rek defal yitte pour dimbali ko yàlla ni nag ñëpp ñoo xamante ni daje nañ ñoo xam fu ñu mën a daje waaye seen jataay ba maa leen fa bàyyi yàlla ni kooku ñooñu noonu garantaan naa leen sama mbëggeel waaw kon nga yëg ni kon toog di wéttali konte borom bi subhanahu wa taala facteur la ci yi nga xamante ni dafay waral mbëggeel wal mutazawirina fiya waaw kenn ku ci nekk di nemmeeku boromam di ko visite ji di ko xool moo xam dafa feebar moo xam dara jotu ko moo xam tong ba ci yàgg nga gëj ko gis moo xam ci sa téléphone nga ko woo sax nemmeeku ko xool ca na mu tooge moo xam benn vocal nga ko euh, euh, sànni ci sa WhatsApp wala yeneen yu demee noonu ay ak moyen de communication boo am rek ngir yëg ni mën nga ci dox ak mbokk yàlla nee na kooku nga xamante ni mooy def loolu garanteel naa ko sama mbëggeel wal mutabadilina fiya nee na mooy ñi nga xamante ni si waxuma la dara waaye dañuy def yitte lépp loo xamante ni amee nañ ko ñu koy génn di ko jox jom jaamu yàlla yi ci jubluwuñ ci lu dul ci am ci cofeelu borom bi subhanahu wa borom bi wax baneen baneen bu muy woote bu mu war a woote yowmal qiyaama muy woote bu riche ndax li ko richel mooy ni yàlla bu demee ba woo njaboot am lu mu soxla ci ñoom tax mu ni dama leen di honorer ngir lii woote boobu rëy na waaw ta mooy ëllëg yowmal qiyam ci ni ko yonent bi nettaleewaat mu ni borom bi dina woote woote goo xamante ni ñëpp a koy diglu ndax ñëpp tiit jàq nee na fa ñëpp tiite fa ñëpp jàq ba kenn fa kenn ku ci nekk mënatul a taqal maanaam taqalikook sagoom jamono ba nga xamante ni yaay dana gestu doom wax doomam ni ko juruma la doom gestu baay gestu yaay wax leen ni leen juru ma ngir kenn ku ci nekk dafay bëgg a dese ak boppam pour man ko layal ngir dugg àjjana ngir ragal safara bi nga xamante ni commencé nañ di ca barkeelu ca tàngaay wa nee na bu booba yàlla dina woote ni aynal mutahabuna bi jalali ayna al mutahabbuna bi jalaali nee na yàlla dina woote woote boo xamante ni danaan ana ñi soppante woon ngir sama màggaay imaginel tey kenn dem benn kër kilifa euh, général dawaayir yu bari daje fa ngir ziyaara wala mu ngir màggal wala yeneen yu demee noonu ñëpp toog ba ci yàgg sëriñ bi génn ni ana daaira diw xoola honneur boobu ni mu toll léegi imaginel nga dem ba yowmal qiyaam yàlla ni ana ñi soppante woon ngir sama màggaay gis nga yàlla dafa utiliser bi jalaali waaye waxul bi kamaali waxul tamit bi jamaali ndaxte kamaal bi am na ñu mu ko mën a séddee bu fekkente ni jamaal bi am na nu ñu mu ko mën a séddee mais jalaal bi la ci kenn mënta def benn accès ba yegg ca kon jalal bi mooy li nga xamante ni rëy na rëy goo xamante ni yàlla mën na ko utiliser pour wax ceeg jàmm mën ko dégg ki yëg ni kii wax ak yow bu la nee dinaa la honneur yi da nga ko gëm ayna al mutahabuna bi jalali al yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli mu ni leen bu leen am lu ngeen di tiit bu leen am lu ngeen di jàq tey bisu jàq la bisu tiit la bisu bisu raj-raj la yoo la mais yéen ñëpp mucc ngeen ci ndax yéen ñii da ngeen ma soppoon kon yëg leen ni sopp gi ngeen soppoon ma mooy cofeel gi ngeen doon dencal seen moroomu jullit kon nag cofeel googa doon dox ci seen diggante yi tax na man ma sopp leen ba tey du ngeen yëg benn naaj wu leen di lakk wala ngeen di yëg benn mbugal bu leen di jege mais yéen dañu leen di jël yóbbu leen ci foo xamante ni ña ñu war a honorer ña ñu war a teral ña ñu war a keral ñooña rek ñoo fay dëkkee yàlla nañ ci boole kon dañuy yëg ni loolu lépp dañuy jàngal ni ndekete kon li ñuy tudde amur bu amee ci diggante nit ki ak moromam rek yàlla mën na leen a kon kenn ku ci nekk war ngay xool naka ngay soppe sa morom naka ngay bëggee sa morom te koor moo ñu koy jàngal ndax bu ñu duggee ci koor rek nga yëg ni kenn ku ci nekk xolom set na bu la jëkkee gis ba nuyu la rek lim lay jëkka laaj mooy bal ma ak bal naa la mooy nga yëg ni kon denc la tu la dara kon cofee la ngi dugg lépp lu mu yor da ngay gis bu dog doon waaj a jot nga gis ku yor benn tàndarma dina ko bëgg a xaaj def ko ñetti xaaj pour jox kenn ku ci nekk mu barkeelu ngir mu am ca borom bi subhaanahu wa taala kon ndekete jox gim la koy jox mi ngi ji cofeel ci yow waaye yow tamit yaa ngi ji cofeel ci moom nga gis ñenn ni ñu koy def ci seen kafe wala ñeneen ñu demee noonu kon loolu liñ ciy déggee mooy ni koor dañu ko jàngal yàlla ñu ci yàlla dolli defal tawfiq ak jàppandal ñu yëg ni daal wa fi xubbi xayril alamina wiqayatun waqaana bihi lbaari أذى الإنس والجن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل